projet karamatu xatiya di li nga xam ne moo ko tax a jóg moo di mboolem yàq yi nga xam ne ñenn ñun ñu ko daan def ci xaside yi ci mbind loole ñu saafara ko ci commité scientifique bi nga xam ne moom lañ taxawal ñuy saytu li ni mel di mbindaat xaside yi ci mbind mu wér. sëñ bi day mel ne li mu bëggoon moom li nekk marje delluwaay bi nga xam ne kuy bindati ngay dellu ci lii ndax mbind yi dana seetlu mool yu bari yoo xam ne dafay bari ay yàq. yenn yi mbind mi du rafet yenn yi day bari yàq yenn yi itam di xasida yoo xam ne waree su ko génne yooyu yëpp am ci mbind mi xasida yoo xam ne day diggam ak boroom loo xam ne ci ay gaal la ko defoon gas ko suul ak yoo xam ne dafa tere woon ñu tasaare ko loolu boo demee ci diwaan yi si Mour Diagne leeral na ko rek loolu ci biir ñoo xam ne loo xam ne diggam ak boroom la yooyu buñ ci àggee dañ koy bàyyi xel ak yoo xam ne itam <clears throat> dafa jaxasoo ci biir mbind yi xaj na ñenn ñoo ko bindoon di ko askanale te moom te defu ko yooyu yëpp incha allah ñu ngi koy bàyyi xel mel ni suñu soixas de moom la wax ak ñeneen ñoo xam ne seen xam-xam dafa wàcc ci wàllu googu des cay diisoo ak ñoom pour ñu ko génne ñooñu ñu xam xam lu war a génn lu war a génn incha allah liggéey la boo xam ne daal lim laaj lépp ci ay sonni ak ittéo ñu ko def moom ndax nag day loo xam ne du lu woyof ndax bu noppi nii lu ni ko sëñ Cheikh waxee lu lu taarix di téye lay doon ala karil ayaami wa wa suxor ba addunay tukki bi dafiy des kon nag loolu nañ ko bàyyi xel bu bàyyi nañ ci xel yooyu yëpp bàyyi ci xel it ne euh, moom ci boppam lii euh, ab liggéeyam la boo xam ne euh, li ko li bàyyi li ko ci gën a ñor ci la bokk kon ku ci lañ lañu di ci di ko di ci di ci di ci liggéey war def ndànk bu baax a baax ndax du loo xam ne des ci def jëfandikoo xalaat wala nga di ko nga di ko toppi xam-xam waaye des koy des ci des ci des ci sukkandiku ci ñi nga xam ne ñoom la daan binduloo yàlla dogal na ñu ci bari seen i ñoom seeni i bind am nañ ko mooy mag ñi nga xam ne eh, ñoom da leen daan binduloo suñu bindee ba noppi jox ko mu xool léeg mu yokk ci nag la ñooñu itam des na delloo ci eh, seeni i bind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 waaye it ñu utal benn makan moo xamante ni fa la ñuy def mboolem xasida yi sëriñ Touba yi ci complex Cheikh Ahmadul Khadim bi nga xam ne sëriñ bi moom lay liggéey ci Touba. Ah, kër bopp boo xam ne mbindum sëriñ bi képp moo fay nekk. ngeen xamaale ko ngeen si. dañ ko dañ ko daan ci sóobu ci saasi. may xalaat. bi may xalaat. ak ci xalaat wax sax bas